أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla doole xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala toll ci suura ala imran di jël aaya 45 46 47 ñetti aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf ñi ciy jàngal ñeenti mbir xam ngeen aaya yooyu ba tey ñoo ngi des di leeral ci délégation nasaraan boobu nga xam ne ñu ngi bokk ci giiru Najran bi ñu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dàggasanteeg moom ci mbirum isa ba tey aaya yaa ngi ci loolu ñetti aaya yi dinañ ci jëlee bayaanu sarafu mariam aaya yi dinañu leeral soxna soosu tudd mariama ngëneel yi mu làq ak teddaange gi mu làq moom mariam wa kiraamatiha ak teddangeem ala rabbiha ci boroomam jigéen la joo xam ne yàllaa ko tagg yàllaa ko tànn yàllaa ko setal yàllaa ko wàcce ci maqaama yu kawe yi moom soxna soosu waaye xam ngeen ne soxna si yàlla xëyul rekk tànn ko par hasard déedéet dafa juddoo fu baax waaye ba mu juddoo fu baax ñu jéem kaa teg ci lu baax mu nangoo tegu ci yoon woowu nangoo tegu ci lu baax mu màgg ci lu baax loolu ba borom bi subhanahu wa taala daal di koy jël daal di koy tànn baaxal ko iz kallamaha jibril pour ngeen xam ne soxna si ku tedd la woon ku amoon maqaama bu rëy la jibril wax na ak moom te xam ngeen ne jibril yonent yi lay waxal waaye ndaw si jibril wax na ak moom kon ku jibril waxal lu desati ci yow loolu moo leen di wan ne ndaw si am na maqaama yu rëy ci borom bi subhanahu wa taala ndax ku toll na jibril wax na ak moom waaye wa basharaha baada an tamassala laha basharan jibril waxtaan naag ndaw si wax ak moom jox ko benn annonce bégal ko ne ko borom bi subhanahu wa taala day def laa fas yéene bégal waaye keroog ba jibril di wax ak moom ci ban melokaan la ko jibril feeñu borom bi subhanahu wa taala moo nu nettali loolu mu ne soxna si day jibril feeñ na ko ci melokaanu doomu aadama an tamassala laha basharan jibril wax na ak maryaama ci melokaanu doomu aadama ci melokaanu nit lu tax ndax jibril moom ak mbindam gis ko kenn mënu koo dékku doomu aadama moom mënu koo dékku ñaareel ci li ñuy jëlee ci aaya yi mooy bayaanu sharafu isa yàlla nuy woon di nu leeralal tedda nge yonentu boobu tudd isa alayhi salaam wa wajahatihi ak daraja bi mu am maqaama bi mu am ci yàlla subhanahu wa taala am na daraja ci àdduna am na daraja ci àllaaxira moom isa alayhi salaam waaye lu tax mu am daraja ci àdduna lu tax mu am daraja àllaaxira loolu la ab jullit war a roy pour mu am daraja ci àdduna pour mu am daraja àllaaxira waaye wa annahu min almuqarrabin wa salihin moom moom isa yàlla def na mu bokk ci ñi jege min al muqarrabin ñi jege yàlla waaye bokk na ci saalihin ñaari garaad yi yaakaar naa bu ko ab jullit amee ci kaw suuf jaratul muy ut leneen mooy nga bokk ci ñi jege yàlla waaye nga bokk ci nit ñu baax ñi te loolu rek moo tax jullit di sonn jaamu yàlla yi ñuy yëngatu kër kër yi guddeeg bëccëg dara waralu ko loolu rek yàlla gërëm nu ñu rek ñu am tiyaaba yàlla kontaan ci ñun waaye moom Isa amoon na loolu bokkoon na ci ñi jege yàlla subhanahu wa taala waaye bokkoon na ci nit ñu baax ñi ñetteel bu ñuy jàng ci aaya yi ñu war a jël mooy takallama Isa fil mahdi Isa wax na ca ba mu nekkee ci beesu ba mu nekkee liir nekk xale juddu nekk ci ay laltaayam ñu def ko ci berso bi Isa wax na foofu boroom xam-xam yi nee nañ ñetti xale ñoo musa wax ci seeni berso ñu ne takallama fil mahdi gayru wahid li wax ci seeni berso ëpp na benn nit kon ñett lañ kan moo ci njëkk shaahidu yusuf ndaw si doon xale bi doon seede yusuf keroog wax na te boobu xale la bu ndaw ñaareel mooy saahibu jurayj nitu yàlla boobu tudd jurayj ndaw si tuumaaloon foo ba ëmb am doom ñu ne ko doom ji kuy baayam fekk dafa contre Jurayj mu ne Jurayj moomu ëmbal keroog ba nitu yàlla bi tegee loxoom ci xale bi ne ko maa ngi lay seedeel ci yàlla kuy sa baay mu wax turu baayam ñetteel ñu wax nekk ay liir ci seen berceau mooy Isa alayhi salaam ñett ñi ñoo musa wax ci ay xale yu naam loolu nag kéemtaan la bu sunu borom subhanahu wa taala defal leen ndax tàmmuñu ci aada ñuy gis liir di wax kon suñ demee ba gis liir wax rek génn na cadre aada léegi am na leneen lu fa nekk moo tax ñett ñi ñoom la borom xam-xam yi wax ne ñoom ñoo mës a wax ci bersu Isa moom wax na ci ayatun min ayatillah loolu moo tax ñu war a xam ne moom kéemtaan la moom isa ci kéemtaanu yàlla yi subhanahu wa taala ndax xaysu lam tajri al aada an radi yatakallamu fi zamani ridaa'ihi ndax mbokk yi li ñu gis ñun ñëpp mooy bëriwul dara te sax luñ dul gis lu bari la mooy ay liir di wax ci jamono jiñ leen di nàmpal ñeenteel bi ñuy jëlee ci aaya yi ñu war a jël tey mooy jawaazu talabul istisfaari léeg-léeg di nga yëg dara ñu wax la ko walla nga xam ko nga ci sàkku leerlu sàkku leerlu ndax dinañ gis ci aaya yi léegi yonent bi am na lu mu gis mbir yi xaw ko jaaxal mu daal di ci sàkkoo leerlu kon ab jullit day leerlu lu mu dégg wala lu mu xamul wala lu mu bëgg a dugg mu leerlu ko balaa muy dugg ci biir amma yakunu muxaalifan lil aada rawatina nag loo xam ne dafa dem ba génn cadre aada nit ñi li ñu xamoon mooy lii yow nga jekki-jekki lii ñu xamoon nga gis leneen ah kon war ngaa leerlu lu tax lii waaw muxaalifan lil aada li maarifati charri li maarifatu sirri zalika ngir nga xam sekkere bi tax mbir mi waruloon am ni mu amee aw illati hukmihi wala nga xam illa atteem waaw lii lan moo tax mbir mi waroon mel nii waaye melul nii lu tax mbir mi waroon nekke nii waaye nekkewul noonu kon dana dagan yow mi nga xam ne yow yaa xamul ci lii dara balaa nga ciy dugg nga daal di koy leerlu kon mbokk yi ñeenti tomb yi moom la ñuy jëlee ci sunu aaya yi ñu war a jël tey mu nekk ñetti aaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سنو برام ني إذ فاتلكو لين قالت الملائكة بملاك يوخي أك سخنا سي تد مريم ملاك لن لن كو axbarat hal malaika malaaka yi xabaar nañ ko ban malaaka la ay jibril moom moo wax ak moom alayhi salaam bi anna allaha taala jibril xabaar ko ne ko yàlla subhanahu wa taala day yubashiruha bi walad yàlla dina ko bégale doom bi walad yakunu bi kalimatillahi taala ay doom jooju day du am bàyyi doom jooju day ci kàddu yàlla lay bàyyee ko waaye bu juddoo turam ismuhul masih turam day mooy ku mu raay bu wér loolu mooy almasih ay nit dañ daan juddu duñu am bët buñ ko indee ci moom ne ko ñaanalal ñi bu raayee seen kanam gi rek ba di ñëw wala ñooñu ñëpp du ñu am kanam ba di di ñëw bakkan yi di ñëw gémmiñ gi di ñëw bu leen raayee rek mbir mi daal di ñëw wala dañoo xuuge bu leen raayee xuuge gi dañ ñu tuddee ko almasiix mema sella ana pëli mema sella su la raayee rek nga wér këng mooy almasih ku mu raay mu wér léegi nag ndeysaan sunu borom moo yónni jibril ci maryaama mu ne ko inna allaha naka yàlla day yubashiruki mi ngi lay bégal yuxbiruka yuxbiruki bi xabarin saarin mufrahun laki yàlla day mu ngi lay jox benn xabaar xabaar boo xam ne dafa ànd ak mbégte yaa ngi laa lay bégloo di la kontaan loo ne yu bassiruka yu bassiru ki mu ngi lay bégloo ci lan bi kalimatin minhu benn baat bu bàyyeekoo ci moom baat boobu lan la mooy huwal masih alayhi salaam yàlla wax jibril mu dem waxi loolu maryaama mu ne wa annahu zuja yàlla bi mu waxee loolu jibril ne ko demal nga bégal maryaama ci doom boobu fekk maryaama isolé wu na génn na baytul maqdis génn na biir jérusalem dem ca àll ba ci montagne ya lu tax parce que dafa war a am doom diir bi jibril waxanteeg moom ne ko yàlla nee na di nga ëmb di nga am doom ci waxtu yu ndaw yooyu rek moom mu yëg ne ëmb na léegi nag nu muy def mooy foog mu sori ndax lii mu nar a nekk ci dëkk bi dafa nar a doy waar moo tax mu daal di génn ba mu yëgee ne ëmb na rek mu génn dem ca àll ba daat fay toog waaye borom bi subhaanahu wa taala doom jooju mu may muy may Mariama def ko xabaar doom ji nan lay mel ñaari nit ñaari yonent yàlla moo leen tudd xanaa seen tur dañ ko indaale ñaari yonent xam nga leen xamoo leen montre baa ngi nii de ñaari yonent ah góor gi moom dafa sëgg quoi waaw gars yi xam nañ ko de ah macha allah non ñi ko xamul laa soxla xam nga ko ah déedéet ñaari yonent seen tur dañ ko indaale gars yi bëgg nañ moon tur de Isa la ak ak Yaxya ah déggoo bi malaaka bi ñëwee di ko wax di nga am doom ju góor après daf ko wax tur bi démb bi bi ya Zakaria di ñaan dañ ko ne sa soxna dina ëmb waaye doom ju góor mais bu tudd bu juddee tuddee ko Yahya mooy ñoom ñaar kon seen tur moo jiitu seen juddu ndeysaan minhu ismuhul masih turam day mooy moom la tubaab yi naan messi mooy masiix mooy messi isa isa lay tudd ibnu mariama doomu mariam noonu la yàlla subhanahu wa taala wax lay tudd almasih mu ne luqiba isa isa dàkkantele nañu ko alayhi salaam bi almasih tur boobu lañ ko dàkkantalee mooy almasih uxtilifa fi sababi talqibi isa bilmasih mu ne boroom xam-xam yi am nañu benn wuute bu ndaw ci lan moo tax ñu dàkkantalee isa almasih waaye mu ne wal mashhuuru li siiw annahu laqabun sharifun kal faruq masalan awil malik nee na loolu la baat bi ni di nuru Omar ibnul Xattaab am na dàkkantal lan mooy dàkkantalam mooy alfaaruq moo ki tàqale dëgg ak fen Ousmane Ibnu Affan am na dàkkantal zonu rayni Ali Ibnu Abi Talib am na dàkkantal abubakrin saddiq am na dàkkantal ah siddiq hamza am na dàkkantal asadullah loolu la isa tamit am na dàkkantal lan mooy dàkkantalam mooy almasih ibnu mayram ibnu maryam yont yàlla muhammad tamit am na dàkkantal lan mooy dàkkantalam ah al amin dàkkantalam la abul qasim abal qasim dàkkantalam la kon loolu moom mooy dàkkantal mooy benn tur boo xamante ne dañ la koy xamee yenn saa yi sax mu gën a mu gën a siiw tur bi nga xam ne moom nga am isa comme da doon def ku mu raay mu wér rek gars yi daal di koy tuddee almasih mooy messi ku mu laal rek mu daal di wér gars yi jël tur boobu daal di koy jox yàlla ne ah mema sella yàlla ne wajihan fi dunya allahu akbar zulja borom daraja la wajihan ku am daraja lan mooy ko am daraja tey ci àdduna mooy ko am alal rek alal rek la ak lan ndomba tànk kii mooy premier ministre kii sénateur la kii kii allahu akbar wajih yàlla ne borom daraja la wal qudura borom kattan la wa sharaf borom teddange la bayna naas ci diggante nit ñi dëgg la de ndax isaa bi mu juddoo commencé di def ay kéemtaanam ñépp bëggoon nañ koo jur day fekk ban bu tooy mu tibb ci dank ko ba mu wow su ko sànnee mu nekk picc naaw mu fekk ay nappkat yuy dem géej ay ay weer ay semaine ay at amuñu jën mu jël mbaal mi sànni ko ne leen xëcc leen mu xëcc gaal gi fees jën mu fekk ku dee mbokkam yi war ko di jooy mu ne ko jógal mu jóg mu fekk ku feebar mu raay ko mu wér mu fekk ku silmaxa mu raay ko bët yi gis moo da yàlla ne borom daraja la woon li mu takkoon daa bëri de léegi nag comme ñenn ñi amuñu imaan gis nañ ko muy dekkil mu dee ku dee gis nañ ko muy def ay kéemtaan ñu ne ah comme ki amul baay ki yàllaay baayam loolooy wax ji nag fekk loolu lépp njuumte la bu fekkee dañuy xool Isa di yéemu ndax amul baay te juddu na Adama nag ma tax borom bi di wax ci suurat saar bi ba tey bii ñu nekk mu ne inna masala isa inda allahi ka masali adam su fekkee da ngeen di xool isa di waaru ndax kéemtaan yi mu doon def ba ngeen ko bëgg askanale yàlla waay waay waay waay adama nag adama ak isa kan ma war a gën a nekk kéemtaan adama ndax aadama moom isa moom mun nañu wax ne am na yaay baay ji kay lañu war a lijjanti su fekkee boobu am na waaye aadama nag ah normalement su fekkoon nit ñi dofuñu sax dañ doon ut dëgg kon kay aadama lañ waroon wax aadama bi nga xam ne yàlla nee na maa ko defar ak sama loxo li ma xalaqtu bi yadi bi yadi kon kay dëgg-dëgg bu nit ñi doful woon kon kay aadama lan waroon wax sax waaye déedéet ñu bëgg a gëm ne aadama moom ab yonent la yàllaa ko defar mooy première nit ci àdduna waaye de yàlla juru ko ne yonent la ah ñu bëgg nag léegi ñëw ci isa daal di koy askale ne yàlla te yàlla wax na ne kéemtaan laa ci namm yónni ko mu nekk koo xam ne ak dikkam dana war a delloo si ay nit ndax léeg-léeg sunu boroom day xool jamono lu ñuy tiitaroo mu ñëw yónni benn yonant bu ñëwee yonant bi bu ñëwee di wax ci loolu walla mu indi kéemtaan bu gën a garaaw yii li ñuy def booy xool ibrahim lu ko yàlla di yónni jamonoom lan la fekk ay nit di jaay xam-xam ci biddéew yi ibrahima ñëw daal di dajji loolu waaw nit ñi ci biddéew yi lañ doon xool moo tax moom ba mu ne tëll mu gis biddéew mu ne sama borom biddéew bi suux weer wi génn mu ne ah kii mooy yàlla nag weer wi suux jant bi génn mu ne kii moo gën a ngand kii mooy sama borom mu suux mu ne ñett yi benn du ci sama borom bu ma yàlla gindiwul dinaa alku ñett ñii kenn du ci yàlla kii indi ñii leen suuxal koo koy yàlla yàlla isa alayhi salaam ban jamono la fekkee jamono faj moo tax gis nga booy xool làbbe yi màcce ci wàllu faj c'est parce que ñoom loolu lañ gën a jàng waaw bu fekkente ne ñii ñoom ku feebar mën nañ laa faj nga wér ñii moom ñëw di dundal ku dee ku dàq faj ñoom ñaar ku dàq faj ah waaw yow da ngay ñëw pikiir wala bind ordonnance wala daal di waa ji day raay mu wér bu dee sax bëri day metti ba nga tuufaay moom bu raayee bëri wér moo tax yàlla ne isa wajihan ku am daraja la woon fi dunya ci àdduna waaye wa fil axirati ak ci àllaaxira ñaar ñaari ndom ñaari ñaari daraja yooyu la am fii ci àdduna yàlla may na ko daraja may ko dayo defal ko teddange ci biir diggante nit ñi wajihan mu ne suujaa wa sharaf fi dunya wal axira moom doomu Mariama boobu borom daraja la bu rëy ci àdduna waaye ak àllaaxira mbokk yi ñu bari tey ci ñun daraja yenn saa yi da leen di sànk xoola Isa lii mu mënoon yépp dekkil ku dee wéral ku feebar juban ci xuuge jël ban sànni mu nekk picc naaw lépp ko doon def bi isnillah tur yàlla ko doon def kon am kon kii mënoon na dara waaye xoolal mu ne leen inni abdullahi man benn rombataan ko benn daraja gaa yi ko naan yow yàlla nga moom lan la wax inni abdullah man jaamu yàlla tey dañu xam ne chef de quartier lañ leen def rek ñu fuuy ku ñu waxal fëgg seen dënd ne la man maay chef de quartier bi ah waxuma la nag yéegalal yéegalal martaba bi léegi mu yéeg dem yéegalal yéegalal ba ci DG bi ba ci ba ci ba ci ay ay dara ku nekk di wane ne man la maa mën lii ku nekk ay boobu nga am ndeysaan te diggante noyyi bi ak dee rek daraja boobu dootul am wala wala foofu ngay tiitaru naan maay diw wala maay doomu diw rek yàlla xëcc sa ruu nga faatu rek daraja boobu daal di dañ yow yaay kan ndeysaan néew ku néewle lépp mooy néew la néewle moo tax ñu tuddee la néew instant bi mu toll lépp la néewle amatul tur néew nu muy tudd ah su colonel bi dee wala président de la république wala yonent bi wala xalifa général bi wala imam bi ñu dugal ko ci morgue bi ku ñëw di laajte looy wax ah lu tax doon naa ne imam parce que tey nekkatoo imaam dootoo jiite ana xalifa bi ñan nga nekk seen xalifa xanaa néew yi waaye nit ñi moom nekkatoo seen xalifa moo tax ku ñëw lu muy wax ana néew bi ñu ne mu ngi ci morgue bi allahu akbar ana daraja bi waaw amatu garaat amatul tur bi sax nangu nañ ko lépp la ñuy jël ay minutes yu néew ñuy wër ci mbooloo mi kan moo la war a ñëw sàng yenn saa yi ñuy joxoñ ay nit ñu ne non non man dama xaw a kii dama xaw a am ngànt xoola ñu ngi lay daw ana soxna yi ñoom bi nga génnee àdduna la ñu yuuxu nit ñi ñëw ñu ne yóbbu leen ko yóbbu leen ko mosoo gis ku jëkkëram faatu jigéen ju jëkkëram faatu mu fanaanoon moom ci kaw la lu wërsëg mën ngeen ko gis moom bi mu bi mu xoolee wëlbatee ko fekk nga dee rek yuuxu na pourtant bi mu xoolee montre am fekk ay 4 heures du matin wala mu fekk ay 2 heures wala 1 heure mënoon na ne ah comme dafa guddi xaaral ma fanaanoog moom rek ba bët set ma bañ a yàqal nit ñi seen nelaw wala mënuloon wax loolu loolu la waroon wax parce que nit ñi boo leen yee 2 heures du matin ñu yeewu léegi dem jël néew bi yóbbu ko bu ñu ñëwaatee du nelaw xanaa déggoo nit ñi dañ naan kii dafa lakkale ne deewu timis du reer tere nit ñi reer xam nga bu nit deewee ci kër timis kër googu kenn du reer d'accord ngeen wala kër googu bu ñu toggoon ay ginaar it kenn du ko reer da ngay gis ñu yekk reer bi ñu ne ñoo leen reer ñëpp suur ndeysaan suñu benn mag bu nekk ci kër gi nee na benn mbokkam benn magam dafa gaañu ñu war ko jëlee France indi ko Sénégal bis biñ ko jëlee France indi ko fekk préparé woon nañ ñi ne ne dañ koy yóbbu Fuuta léegi nag jour biñ koy indi ñu togg ay cere ñu dem ñu dem aéroport jëli néew bi indi ko def ko ci kër gi léegi nag war a reer cere ji nag yóbbu ko Fuuta nee na rakk waa ji dañu teg bool yi rek mu tibb benn dànk daal di sex rek daal di ne daal di koy yàbbi bëgg tufli cere ji ñu ne ko dee dee dee reeral mu ne reeru ma gis nga parce que néew baa ngi nii loolu loo lekk du la saf moo tax daraja yi amul benn importance ñii doy na rek doy na rek nga juddu nga nekk kéemtaan amoo bàyyi loolu doyul daraja doy na daraja di loolu doy na maxaama di waaye xoolal yàlla defaat ko yonent ñaata dara jàngo yemul ci loolu yàlla may koy kéemtaan muy def ay kéemtaan loo bëgg boo ñëwee bu la ñaanalee loolu nekk moo tax gis nga kéemtaan yooyu mu doon def bi mu nekkee xale bu ndaw nekk liir mën a dox di ànd ak moroomam yi toll nii xale yi dañuy ñëw mu ne yow mbaxal nga añe tey kii ñëw mu ne ko yàpp nga añee kii ñëw kii ñëw mu ne ko añoo tey xale yi bu ñu demee di ko wax seen parents yi ah ñun xale bi ñuy fool lu nu def mu wax ñu ko mag ñi commencé téye seen doom yi kii xale bi wóorul kenn kii kii du xale kese kese téye seen doom yi bi mu seetloo nit ñaa ngi téye seen doom yi ñëwatuñ ci moom benn bis mu ñëw benn kër mu nuyoo ne waaw ana xale yi ñu ne ko xale yi nekkuñu fi dañoo foofu yi génn acca mu dégg leen ñuy xam nga ay xale boo leen dugalee ci benn néeg tëj leen du ñu réglé mu dégg leen ñuy cëpp cëpp ci bi mu ne ñan ñoo nekk fii borom kër gi ne ko foofu mbaam yi ñoo fa nekk mu ne yàlla def na ko de ñu ubbi fekk ñoom ñoom ñu nekk ay mbaam loo moo taxoon nag nit ñi yéegal ko ba ëppal ko nag kon kii amoon na daraja ah waaw noonu la Isa meloon yàlla moo tax yàlla mu ne borom daraja la woon borom daraja ku yàlla màggaloon la woon moom Isa alayhi salaam wajihan ku amoon daraja la fi dunya ci àdduna waaye ëllëg àllaaxira aussi ku fa am daraja la lu tax lu tax àllaaxira Isa dafa am daraja ah ah dafa bokk ci ñi jege yàlla bal sax bal ci àllaaxira daraja bu mu fay am mooy nit ñi bu ñu sonnee balaa ñuy dem ci Muhammad ci kan la ñuy njëkke balaa ñuy dem ci Muhammad ku ñuy njëkke ci Isa bu ñu wëree yonent yi di daw di daw di daw balaa ñu egg ci Muhammad foog ñu ñëw ci Isa ba pare ne ko ah ñun de sonn nanu te nga ñu ñaanal sa borom mu génn ñi ci coono bi la la leen di wax man sama bopp laatal ban problème nga am man dañ doon wax ne yàlla laa man loolu laa bëgg a régler man yàlla laa sama yaay yàlla la loolu laa bëgg a régler tey kon am na daraja daraja mooy lan gis ngeen même ci asamaan yi bi yonent bi di dem laylatul isra wal mi'raj gis na fa isa alayhi salaam moo ne yàlla mu ne borom daraja la woon waaye dafa boole ñaari daraja adduna ak tey ñun fii daraja yi ñu am am na ci yoo xam ne du yàgg di ñaata waa PS yu amoon daraja ngeen xam instant bi ah instant bi ana daraja yooyu ñaata waa PDS yoo xamoon yu xam ne dañoo amoon daraja réew fuy dof tey jii ah kon yooyu ndomba tànk daraja yooyu amul fenn yeggul fenn na nit ñi def ndànk Isa moom darajaam dafa egg àdduna egg alaaxira ñun fii yow sa daraja li lu mu rëy rëy rëy rëy rëy du egg alaaxira du egg sax bàmmeel du egg sax ci morgue bi ndax boo faatoo rek gaa yi ñoo lay sang yëkkati la tëral la di sang te bu ñu lay sang noonu lay def ah ah yow ngay ñu lay futti xoola dañ lay futti ba nga set ana sa daraja bi ana sa daraja xamatoo dara ay weer say jabar téñ ji jeexal keneen takk leen ana daraja bi nga amoon xam nga mujj gi lu ñuy wax ndem si yàlla si lii de mbubb ndem si yàlla si la woon lii de feeri ndem si yàlla si la woon lii de mbaxneem la woon kii de la daan toog ndeysaan kon daraja yi bu mu tax ñu xam ne ay jaami yàlla lañ daraja amul benn benn njëriñ rawatina nag daraja boo xam ne daraja àdduna la xëy na sax bu dee daraja diine mu xaw a tane ndax dina egg ak yow ci àdduna dina la yóbbu àllaaxira waaye daraja diine aussi bu taxee nga fuuy am nga problème waaw Omar ibn As bi mu nekkee gouverneur Égypte doomam dafa mos a organiser course bi mu organiser course benn arab daal di koy raw rek mu jël benn liif fekk waa ji ko raw fu mu nekk ci kaw fasam rek mu tulli ko liif bi ci ndal bi waa ji ba kaala ginnaaw ne ko lu tax nga may raw xanaa xamoo man maay doomu gouverneur nga may raw waa ji daal di muñ comme munul fayu waa ji muñ daal di for kaalaam ñibbi ut karité diw ci ndalam ba neew bi rees waa ji daal di dem madinatul munawar fekk fa omar ibnul xataab boobu moo jiite jullit ñi mu ne ko man de damaa ñëw di la kalaame mbir moo xam ne dañ ma koo def te tey ci kaw suuf gisuma ku ko mën a régler ku dul yow ndax yow yaay amirul muminin yaa jiite jullit ñi mu ne ko lan la mu ne ko sa gouverneur ba ci Égypte doomam dafa organisé woon course raw ko amul lenn lu mu def lu dul jël yat gis nga sama leel bi gis nga neewi neew bi mu ne waaw mu ne ko moomu ci dóor war na waaw dégg naa li nga wax ne ko toogal ci dëkk bi bul ñibbi Omar daal di bind lettre papa ji ne ko année bii dama bëgg bu tabaski jotee nga ñëw tabaski si mais booy ñëw indaaleel sa doom diw ah waa ji bi mu jotee lettre bi mu kontaan man amirul muminin président de la république moo ma invité aj te nee na bu may ñëw naa indaale sama doom ah kontaan aj bi jot waa ji daal di ñëw indaale doomam Omar bàyyi ba aj bi jeex Omar daal di koy woo mu ñëw Omar woo waa ji mu ñëw Omar ne doomu gouverneur bi xam nga kii mu xool ko ba ñu mën a nag kii xaw ma ko de ah ñu ne waa ji xam nga kii mu ne kii xam naa ko kay mu ne xamama yow wala yow yaay kan mu ne maa la rawoon ci course ba mu ne ah wax na dëgg kay wax na dëgg kay Omar ne ko bi mu la rawee ci course bi loo def mu ne kii waru ma raw ay doomu gouverneur waaw mu ne ko ah bon ne waay année bi mu ne ko bii mu yor la Omar ne waa ji jëlal yat bi waa ji jël yat bi mu ne ko fayul waa ji xiiral yat bi teg ko waa ji mu dem teer Omar ne ko dollil mu dolli Omar ne ko dollil mu dolli Omar ne ko dollil mu ne ko doy na Omar ne ko dóoral papa ji mu dóor papa ji papa ji dem teer ne ko boo lëgee sa doom buy dóore di nga ci wax waaw loolu mooy loolu mooy islam mais loolu est ce que am na tey ci kaw suuf tey borom daraja yi ñooy def lu leen neex ak seen doom yi waa PDS bi ñu fi nekkee da ngay gis ku doomam di dawal auto sens interdit est ce que xam ngeen loolu gendarme jàpp la wala policier nga bàyyi fa oto bi ne ko xoolal maa ngi dem dans 10 minutes oto bi fekk ma kër ga càttat xoolal xoolal reewande googu indi permis bi nga ne joxuma la dara waaw ñaari minute sax nga ñu téléphoné waa ji eh yow xanaa xamoo kii ay nga gis waa ji eh booy xaw moon ne sa papa daal di joxe kayit yi xoolal loolu parce que fii daraja yi la nit ñi daraja yi moo tax nit ñi mënuñu dem daraja yi ñi am daraja ci diine dañ koy wane ñi am daraja ci wàllu àdduna di ko wane te du loolu daraja yàlla moo koy may nit soo ko yàlla mayee dafa am lu mu soxla ci yow pour nga def ko ci sa daraja am na benn góor ndeysaan retraité na ci ci gouvernement Sénégal la nekkoon mooy cinq sages yooyu ngeen doon dégg jamono Abdoulaye Wade kenn ki sant Diallo kooku ñëpp ñoo ànd seedeel ko ci dëkk bi ne darajaam mosu ko wone liggéey na ba dafa retraité mosul sol tëni te ñooñu xam ngeen dañoo am tëni mës na nekk ci oto bu daan dem gouvernement bi mu ko joxe oto dafa delloo oto bi di dawal oto boppam benn jour mu nekk ci autoroute bi am gendarme bu ko bu ko bu ko droité mu droité gendarme bi di ko xas lu nekk mu wax ko moom mun a cekk rek sëgg ci baar bi di ko xool ba caag waa ji ne ko permis bi indi permis bi indi kayit yi daal di ubbi coffre bi naan daal di dajale kayit yëpp am na kenn ku mu nekkaloon de kooku bëgg a kaas mu ne ko man lay waxal kencee génn rek mu jël kayit yi ndeysaan daal di koy jox waa ji waa ji dafa ubbi rek tóoj commencé bëgg a jéggalu mu ne ko rek ki toogoon fii naan ko ñaw nii rek fii ngay mujj sa yuuxu yëpp fii ngay mujj ñàkk jom xam nga loolu baaxul nit te loolu dafa bëri tey da ngay ñëw fii rek nga gis ki benn waaye sol yére rek xamoo lan la rek nga commencé di ko yuuxu nangam nangam mu génnee la benn carte wala ñu ne la kii mooy diw rek nga commencé ñëw di raay ay tànkam ak di bës loxoom dañ def ndànk waaw dañ def ndànk déggoon naa benn ñooñu ñu naan chef de canton xam ngeen ñooñu moom lu leen neex lan doon def léegi naa amoon na benn chef de canton boo xam ne moom bu la woowee boo ñëwee rek balaa ngay wax dalay pes waaw ak koo mën a nekk bu la woowee nga ñëw balaa ngay toog dalay pes ba pare ne la toog nga toog mu doog a lijjanti lu tax ñu woo la xala xam nga loolu day xam nga loolu reew na reewande weesul loolu am benn pël bu mu woo nit ñi ne pël bi bul dem mu ne bañ a dem pël bi daal di tardé mu ñëw rek sama waaye mu pes ko tër waa ji xool ko ba jàgg ne ko dootoo pesati de tey mooy sa dernière pes pare nga ci pes nit pare nga yow dootoo pesati nit ay 30 secondes mu daal di dee wax na dëgg kooku mooy dernier nit ku mu pes mu ne ko jeex na de ñi nga doon pes ñëpp jeex na ci man la yem dootoo pes keneen wallaahi est-ce que du maatam seen kër alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin moom moo ma ko nekk alhamdulilah kon na sant yàlla nekkuñu rek toog fii di leen wax lu leen neex wallahi azim lépp lu leen wax fii ci ay sources yu leer lañ koy jëlee yàgg naa di wax fii ku toog fii ci jàkka ji naan waa ko fekke dëgg la wala mu ngi nii bii moom benn la ci tey jërëjëf Ibrahima Ba bi nga wax fii nekk fii moom moo ma ko wax jërëjëf moo ma nettali loolu mu ne waa ji bi mu dóoree ba pare waa jox ne dootoo dóorati de tey ngay mujjee dóorati ay waxtu rek waa jooju daal di faatu mu ngoog léegi xoolal moom lan moo taxoon muy pes nit ñi parce que dafa amoon daraja mais kee tamit amoon na daraja xam nga ki nga pes rek mu ne la da ngay dee nga dee am na lu mu xam mais kee dafa nëbbu bosam manifesté wu ko wane wu ko loolu moo tax bul xool mbubbu nit ñi rek mbubbu yi di dóore wala ngay saaga wala ngay xasaate wala nga xool këru nit rek wala nga xool njabootu nit rek wala gisoo ko mu ànd ak ay nit rek doo ko fonk te tey loolu benn feebar la boo xam ne dafa bëri Sénégal gis nga Sénégal képp kuñ fi ne dëmm la ku lan la ah ku ñàkk baraak la sakket di waaj a daan bu añee du reer bu reeree du ndékk soo ko xoolee moom ak këram rek nga yërëm ko souvent bu ñuy wax dëmm ci koñ bi rek ñooñu la ñuy wax mos ngeen gis kuñ ne dëmm R plus 5 wax leen ma ko di gaare ay kàttan yu ñuul kukk yor ay malet mos ngeen dégg ñu ne dëmm la ñu ñu tumaranke rek ñu tumaranke ci quartier kenn xamu leen wala am yërmande rek nga gis nañu di leen commencé daw mais loolu du diine loolu foo dem fekk ko fa ku ñàkk ku sonn foo dem fekk ko fa bu fekkee nag léegi ñun ku sonn ku ñàkk rek dëmm la wala nangam la ah waaw waaw atte bi doy na waar de léegi borom alal bi nag pourtant borom alal yi mën na nekk dëmm borom xaalis bi mën na nekk dëmm di borom dox bu rafet bi mën na nekk dëmm kon lu tax ko ñu ne dëmm la parce que am na xaalis boo ko ne dëmm laa léegi mu yóbbu la police ñu jël si la rek yow doo léegi moom yow ñemewuloo ko léegi borom miskin bi nga ñemee kon nañu def ndànk ci daraja yi ñu yàlla di may rawatina nag daraja yi nga xam ne ci wàllu àdduna kese kese kese kese la beneen daraja bi nga xam ne nag moo gën a garaaw mooy daraja diine ba pare ngay exploité daraja boobu di nax nit ñi boobu gën a garaaw te tey loolu moo am Sénégal ah xoolal ki am daraja di bàyyiloo nit ñi jaamu yàlla di leen def loolu bon wala nit ñi nekk ci lu bon yow nga leen ciy jàppale ndax sa daraja boobu wala nit ñaata trafiquant drogue ñaata jaaykatu yàmba ñaata ay góor jigéen mais bu ñu leen jàppee léegi police seen kilifa yi ñooy woote ah asalaamaaleykum cheikh diw mooy wax ak yow rek wala sax ñooñu duñu wax ak yow fu gën a kawe la ñuy téléphoné da ngay xëy rek bu bàyyi waaj pourquoi parce que benn borom daraja moo woote kon daraja yàllaa koy maye subhanahu wa taala ku mu neex mu may la ko ci àdduna mu continuer yow alaxira léeg-léeg mu may ay nit kese daraja ci àdduna kese léeg-léeg mu may leen daraja àdduna ak alaxira comme ni mu mayee isa daraja àddina ak ci alaxira wa jihan ku am da ku amoon daraja la fi dunia ci àdduna waaye wa fil axirati ak ci alaxira waaye wa minal muqarrabin dafa bokk ci ñi jege yàlla jullit yi al muqarrabin yaakaar naa ne nit ci kaw suuf ci àddina tey buñ la ne woon boo balee stade bi léegi ba mu set da ngay jege Macky Sall nooy def dama bëgg ngeen di tontu ñun ñu nekk fii ci jumaa ji kuñ ko ne woon ngoon gi boo balee stade bi ba mu set di nga jege Macky nu ñuy def dañ koy bale ji de dañ koy raxas lu tax parce que xam nga ne boo ko jegee sa aajo faj wala waaw bu ñu la ne woon nag léegi moom da ngay jege xalifa général bi nag da nga koy jege nga nekk bëkk néegam nga jege ko nga nekk bras droit am ñu wax turu sëriñ bi ñu ne diw da nga koy jege mooy def fi mu nekk nii ci at ci fii ci Sénégal ministre yi tey kuñ la ci waxoon yow da nga koy jege da ngay kontaan directeur général yi ñi yëpp société yu mag yi kuñ la ne woon da nga koy jege nooy def day kontaan yow moom li ngay jege xalaat mooy xam daa ne allah da ngay commencé di wut ay projet jege koo ko de mais da ngay commencé waaw si yéen bu ñu la nee da ngay da ngay jege directeur banque BCEAO nooy def da ngay commencé fi mu nekk naan waaw fan laa war a dëkk ma xool non géej waaye moom moom damay toxu moom da ngay commencé xalaat fan ngay dëkk xoolal te yow jegee koo ko de dañ la ne di nga ko jege rek waaw kon bu yàlla ne man diw mi def maa jege lan la ñu war a xalaat bu fekkee nit ñi cumbur cumbur ñii ni nga jege rek lépp baax léegi kon kiñ ne dafa war a jege yàlla mbokk yi wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla la bokk allahu akbar yarhamukallah rombal leen daraja yi rombal leen jege yi nit ñi léegi bàyyi leen nit ñi yéegal leen mbir mi yàlla ne diw mii daf maa jege lu war a xalaat ci kooku yéen tamit nag rafet bu lekku ndaw waaye naka la ñuy def jege yàlla loolu tamit jar naa xalaat bi jege yàlla fi ndeysaan waaw kon dañuy yëkkati allahu akbar wa min al muqarrabin dafa bokk ci ñi jege yàlla subhanahu wa taala walan mooy tax nit mu jege yàlla lan moo tax nit mu dem ba jege yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jaam bi du deñ wala yazaalul abd nit du deñ di jege jege lu yàlla di jege di dem di dem hadis bi dafa commencé ci man aada li fil wali képp ku noonoog sama xarit ma noonoog yow jaam bi li yàlla gën a bëgg ci moom mu koy def mooy li yàlla farataal ci moom doo deñ di des farata yi di def farata yi di jaamu yàlla di ko jege di dem di dem ba soo waxee yàlla mooy wax soo xoolee yàlla participer looy jëf yàlla bokk ci soo doxee mu nekk yàlla soo waxee mu nekk yàlla soo jàppee mu nekk yàlla soo bàyyee mu nekk yàlla mais lan moo ko may waaji mooy muy jege yàlla ci ay naafila ci ay naafila fi mu nekk nii ci ñun ku la ëpp lu muy jaamu yàlla moo la gën a jege yàlla loolu la nit ñi de nit ñi ay martaba lañ dañoo rawante abdallah ibnu xuzaafa ibnu xuzaafa dañ ko jàpp ci benn guerre romains yi ñoo ko jàpp su ko romains yi jàppee ñu ne nanu neexal abdallah pour mu bàyyi yonent bi parce que buur bi seetlu na ñi muhammad yar yëpp ay ponkal lañ ay jàmbaar lañ mu ne kon na ngeen ci fexe ba kenn rek bàyyi muhammad ñëw fara farak ñun ndax saxaaba yi li leen woon ne ay ngand lañ woon ay ponkal lañ woon mooy yàlla moo leen tagg ci alxuraan yàlla nee na kenn ci ñoom ñaata yéeféer la doon xeexal bu fekkee téeméer ngeen ngeen xeex ak bu fekkee junni ngeen ngeen xeex ak ñaari junni benn nit fu muy xeexeek ñaari nit wala ngay xeexeek juróomi nit kon kay ñii duñu woon ñu law ci ñeme ci njàmbaare buur bi ne ko léegi leen laa bëgg nga bàyyi Muhammad ñaar laa lay defal dama lay may sama doom bu jigéen dëkk bi dama koy xaaj ñaar nga nekk fi président ma nekk fi président loolu neex na de ku makki woowoon léegi léegi ne damay dagg Sénégal ci digg bi may la sama doom bu jigéen ba pare nga jiite fii ma jiite fii ñu yóbbu la ba booru ay Tamba yooyu nga nekk fi président jëm li muy tàng tàng di nga ne way monsieur le président wala parce que yow xam nga ne tàngaay bi doo ko yëg doo ko yëg de oto bi sax boo ci nekkee doo yëg tàngaay bi wala boo nekkee ci biir néeg bi doo ko yëg lu tax ndax danañ la préparel préparation boo xam ne yow doo yëg tàngaay tàngaay bi kay ñi ko yëg mooy sunu zaar yi waaye xoolal loolu ni mu neexee mu ne ko déedéet boo ma joxoon àdduna ak lu nekk ci biir àdduna doo ma bàyyi Muhammad mu ne kon delloo leen ko ci kaso bi ñu jël Abdallah jugal ci kaso bi ay minutes ñu jël ko xale bu jigéen bu def yaramu neen ni ko yaayam jure ñu ne ko demal nga njaaloog waa ji bu njaaloog moom rek dina bàyyi yonent bi bi mu séenee waa ji di ñëw mu concentré wu ci Qur'an wala ci asmaullahi alxusna ci zikr di tudd yàlla ba ndaw si bu mu ñëwee dafa gësam waa ji def lu nekk waa ji na këkk ndaw si moo mujj yuuxu ne leen ki ngeen ma dugal du nit ak ëkk la ak ëkk xam ngeen ëkk non booy disco yi xamuñu ëkk de booy ndakaar yi xam ngeen ëkk ëkk mooy lan xaar leen xaar leen yow xam nga ëkk yow gis nga ñi ay booy Dakar lañ yow xam nga ëkk ëkk yow ku may leeralal ëkk mooy la doj déedéet ëkk mooy xam ngeen garabu koko ah xam ngeen garabu koko wala garabu garab buñ daggee ci kaw dagg ci suuf est-ce que dina saxaat ñu bàyyi ko mu daanu loolu ñu bàyyi mu daanu lu ngand loolu mooy ëkk waa ji nee na bi mu ñëwee ci ndaw si da koo yëngal ba sonn ci waa ji da koo yë- ndaw si nee na bi mu ñëwee ci waa ji da koo yëngal ba sonn mais waa ji noonu la mel comme ëkk xam nga ëkk moom boo ko yëng loo ko yëngal yëngal boo nee nii mu yëngu boo bàyyee da du yëngu mu nga léegi ñu ne xam nga nu ñuy def dañ ko delloo ci kaso bi mais nañ ko tiital ne ko dañ lay rey ñu delloo waa ji ñu indi ñaari cin yu ëpp sunu cinu ngénte yi ñaar ñu baxal leen ba ndox fu muy yem ci tàngaay ba mu ëpp ko ñu jël benn jullit ñu indi ko moom Abdallah ñu indi beneen jullit ñu ñëw rek jël benn jullit bi rek dugal ko ci cin bi biñ ko ci dugalee rek dafa siddeeku yàpp yi dañoo wàcc yax yi daal di jóg ci kaw yax yi lañ gis gisatuñ yàpp waay ñu ne Abdallah beneen cin bi yow lañ ciy dugal de rek mu jooy lu mu jooy rek buur bi ne ko voilà yaa ngi ni tappet nga ba pare ma ne dama lay may sama doom jox la fii nga bañ dama lay kii nii nga bañ ñu nekk bi di la neexal ngay dof dool te yaa ngi ni dangaa ragal deey yaa ngi ni gis sa mbokk bi dee ngay jooy mu ne buur bi jooyu ma lool de ñu ne ko looy jooy mu ne waa ji ngeen dugal fii ñu ne waa mu ne daf maa jiitu àjjana lool rek laay jooy maa jiitu àjjana parce que biñ nekkee ci kaso bi bu ma jàngee benn xisib alxuraan mu jàngee ñaar su ma jullee ñaari ràkk mu julli ñeent su ma waree benn fan mu woor ñaari fan xamoon naa ni ma rawee ci jaamu yàlla dina ma rawee aljanna kon ku la raw ku la dàq jaamu yàlla moo lay gën a jege yàlla wa min al muqarrabin beneen misaal mooy sunu sëriñ sii ñu topp lan moo tax ñu topp leen ñun dañoo jàpp ne ñoom ñu gën a jege yàlla loolu nga jàpp rek sa xel mais wallahi yow mën nga ko gën a jege yàlla ku la ne moom day réer tëdd yow nga réer nekk sa siyaada boo sonnee di tudd yàlla nga jël sa alxuraan jàng yaa ngi téye sa làmmiñ fenoo sàccoo jëwoo njaaloonoo naroo yaa ngi topp sa diine yaa ngi fenn waaye nag Sénégal moom boo amul mbubb mu ngande mbubb mu ngande loxo yi rëy nga am kaala gu ngande nga am sikkim bu ngande santoo diw santoo nii santoo nii yow jege woo yàlla jege yàlla jaamu yàlla mooy tax nit jege yàlla waaye du ay sant du dëkk nit mën na dëkk màkk nga dëkk gën ko ne su ngeen jàngee benn téere bu tudd zamanul qadim benn xale bu góor bu juddoo màkka moo ñëw Maroc màkka la juddoo mais Maroc la tuubee mu ñëw fekk marocain yi ñoo ko raw ñoo ko ëpp diini te Màkka la juddoo dafa am benn correspondance sam bu nekk Maroc ñu doon bindante lettre ñu xamante ñoom ñaar di bindante lettre jeune bi nekk Màkka benn benn vacance rek mu bind marocain bi lettre ne ko man daal dama war a def tour du monde parce que mosuma tukki mais instant bi dama bëgg a tukki dinaa dem dëkku sàngam dinaa dem dëkku sàngam mais dinaa jaar Afrique comme yow sama xarit nga xamante mosuñoo gisee dama laa bëgg dem siyaar si kooku daal di kontaan bi mu jógee ba voyage bi jot mu ne ko départ na instant bi may ma ma ma lay wax maa ngi dëkku sàngam boo fa jógee dinaa ñëw dëkku sàngam boo fa jógee ci yow laay ñëw mais balaa may ñëw dinaa la jokkoo ak yow mu toogee ba war a ñëw mu jokkoo ak waa ji na ko damay ñëw jouru sàngam heure sàngam ci vol sàngam waa ji daa dëkk seen ko wax ko imaam bi ne ko damay am gan gu jógee màkk ñu wax ko imaamu dëkk bi waa ay tànt ñu luy ay seize jënd nag luy ay rajo def convent jëm aéroport di jëli waa ji di sikkar di jàng alxuraan ba yegg jël waa ji indi ko baas boo xam ne niñ ko orné waa ji nag mooy nettali de ci téere bi mu ne biñ ma indee ba ci 16 piliane biñ ma tegal ñu teg ma ci nag ñu jox ma micro bi nag ñu ne naa jàngale lislaam nag naa waaraate te man musuma sax julli musuma julli mu ne sama yaram daw ma commencé di xalaat ma ni man maa ngi nekk màkk bis bu nekk may romb kaaba gi di ko romb 45 mètres vif duma ci sax dugg ndeke ay gis jant bi di sowe ñoo ma gën a bëgg yàlla ñoo ma gën a bëgg yonente mu ne foofu ñu ne ma waxtaanal nag léegi imaam bi ubbi na nag bañ jox ma micro bi mu ne rek sama xel dem ci bi ma nekkee primaire primaire jàngaloon nañ ma histoire kaaba gi mu ne xoolal loolu laa fa mën a wax ma nekk fa naan leen waaw kaaba gi ah ibrahima moo ko tabax ibrahima moo ko tabax mi nga ànd ak doomam mu tudd ismail ne maa ngi loolu ba gis nit ñi di jooy naan allahu akbar di jooy mu ne waaw mu ne ñooñu muy waxtaanal ñu ngi jooy mu ne bi mu waxtaanee loolu nettali leen histoire kaaba gi ba mu jeex mu ne nit ñi jóg ku nekk bu koolaal mu ne ñu yëkkati ko ci kaw ku nekk di ko ziyaare ñu koy ñii di ko mu ne guddi joon nag léegi ñu dugal ko néegam nag mu war a tëdd nag nelaw nag nee na mu mu toog ci digg lal bi nag di wax ak boppam nag waaye gis na loolu xam nga lu mu ko jural moom waa ji bi mu toogee ba conscience am ñëwaat ci moom mu xam ne moom dëgg dëgg dafa sànk waa jooju keroog la commencé julli keroog la commencé ji am naa sama benn xarit instant bi bu nekk Espagne bi mu demee Maroc daje na fa ak ay jeunes Palestine yoo xam ne mënuñu lire alxuraan moom moo leen doon jàngal alxuraan te ñooñu Palestine lañ juddoo kon ngeen xam ne du nekk arab du am yaram du du du du déedéet yàlla moom ku ko jéem a jege rek jege ko bunt bi kenn tëju ko ku jegewul yàlla rek yow la ndax yoon baa ngi nii ubbeeku moyen yi ñuy yóbbu ñu jege yàlla aussi moyen yaa ngi fi xam nga ko waaye nag ku takk ku tilim ku setul ku sanguwul du jege yàlla sa doom yaa ko jur sa doom boo génnoon tey ak yére yu weex tal nga ñibbisi ci kaw ba ci suuf lépp a weex sa doom bi jóg ci pot sàmbur loxo yaa ngi takk yaram baa ngi takk mu daw bëgg laa laal nooy def ah da ngay woote ana yaa eh téye leen ko téye leen ko wala buñ ko téyewul nii nga koy def nii te pourtant yaa ko jur nii nga koy def ba ci yaay bi nga ne ko téye kii bala mu may taxal wala sa doom la mais buggoo ko laal parce que lu tax parce que dafa takk kon boo takkee bëgg a ñëw ci yàlla yàlla da lay delloo ku takk du dem ci yàlla. borom takk. waaw bool bu takk sax kenn du ci tibb bool bu takk bu la ci takk tibbulee doo lekk ak loo xiib xiib doo lekk gis nga moo tax takk baaxul yàlla nag bëggul ñu takk pour ñu jege ko ñàkk takk gi mooy tax ñu jege yàlla boo sellee rek jege yàlla boo sellee bu sa ruux sellee sa yaram sell sa làmmiñ sell say bët sell say nopp sell sa cër yëpp sell da ngay jege yàlla su boobaa nag da ngay mujj di def ay kéemtaan yii yii di jaaxal nit ñi ni yow dootu la jaaxal asamaan bu xiin dootu la téye naaj bu tàng dootu la téye weeru koor bu jeex du la tere woor bu nit ñi nelaw ngay naafi la bu nit ñi nekkee ci wàllu àdduna yow nga nekk ci wàllu àllaaxira yàlla tàgg na Isa mu nekk dafa bokk ci min al muqarrabin allahuma ijal waaye moom isaa ba tey beneen garaat bi wa yukallimu nnaasa fi lmahdi da daan wax ak nit ñi ci ci berceau wa yukallimu nnaas muy wax ak nit ñi liir buy wax ak nit kéemtaan a ngi noonu boo xamante ne yàlla subhanahu wa taala moo ko def wa yukallimu nnaas fil almahdi mooy madja wa huwa radi mooy loolu yenn saa yi nga gis boo demee ci kër nga gis borom kër gi ci biir néegam dafay defal doomam bu ndaw benn lal lal boo xam ne dafay yëkkatiku ba xale bi buñ ko dugalee ci biir bu doon bërëngu du daanu bu demee ndeyjoor du daanu bu demee càmmoñ bu jógoon taxaw sax nag bëgg a génn du mën a génn loolu mooy berceau isaa mii nag bi mu nekkee liir ñu dugal ko ci berceau bi la wax lan mooy sababu mu wax mooy xam ngeen Mariama bi mu amee doom yàlla dafa bëggoo wone dara xam na ne jigéen xale bu ndaw te loolu lu doy waar moo nekk ci àdduna tey mooy nit ñi boo jógee jëm ci yàlla nga am gàllankoor rek gàllankoor googu nga am nit ñi dañ koy jéem a exploité parce que démb damay seetaan télé du ma bëri lu may seetaan télé Sénégal mais souvent bu ma taalee télé bi bala may jafe di di seet chaîne bu ma bëgg ci antenne parabole bi bu fekkee journal laa fekk dama koy bàyyi pour ma seetaan journal lan moo xew Sénégal ma jàpp rek jàpp Walfadjri ñu génne Kédougou ñu ne dañuy jàpp ñi dagg bant yi ñu ne jàpp nañ ay nit yuy dagg bant yi di lakk këriñ amuñu benn autorisation am na sax benn imam loolu mooy lan jàpp nañ ay nit jeex na mais imam biñ ci bëgg a dugal pour lan la xanaa imam bokkul ci nit ñi mais information ñiy xeex diine ñoo mel noonu jàpp nañ fee ñeenti nit am na sax benn oustaz bu ci bokk nit ñooñu oustaz bi bokk ci benn imam benn benn benn maadaama ne am na ci diine tuuti rek foog ñu jël diine jooju bu koo wax nit ñi ñaata yoon ngeen koy dégg ci rajo bi benn imam moo ëmbal benn xale benn sëriñ daara moo ëmbal élève am ñaata professeur ñoo biiral seen élève dem naa dëkk boo xamante ne élève bi moo biiral professeur bi fii Casamance mu ngoog lu mel noonu déggu leen ko élève la wax moo ëmbal professeur bi waaw ñaata yu mel noonu ngeen koy déggee ci dëkk bi ñaata ministre ñoo fi ëmbal ñaata waaw lu tax loolu kenn ko wax nit ku tarxiis ku tarxiis kese la mais foog ñu ne imaam parce que dañu jàpp ne imaam yi moom ay malaaka lañu wala dañu jàpp ne ñoom duñu ay nit loolu moo lay won ne mariama mii loolu la yàlla xam comme mariama dafa nekkoon ci jàkka ji ñu utal ko ci côté jàkka ji benn néeg mu ne fay jaamu yàlla ba léegi nag lii xew na yàlla xam ne ne nit ñi danañ wax moo tax bi mu ëmbee rek mu daw dem ca montagne àll ba mu nekk ba mu am doom ak ni mu amee doom ba yàlla wax ko defal lii defal lii defal ba mu def yàlla nag léegi moo koy jox ndigal ne ko jëlal xale bi nga dugal ko ci ay morsoom soo demee ba sa kër nga teg ko nga bàyyi ko yow Mariama nit ku ñëw bëgg a wax ak yow ne ko man duma wax ku am looy wax waxal xale bi mu ngi nii Mariama jóge ci àll bi yor xale bi ñëw waa dëkk bi xam nga dëkk bi rek la ilaha illallah xam naa ñooñu moom am na lu ñu wàll waa Sénégal yépp génn fu mu romb rek ñu commencé di wax ñenn ñu ne ko yow xam nga ne lii waru la ndax yow yaay doomu diw yaay doomu diw gis nga de moo tax soo baaxee war ngaa góorgóorlu am na yoo xam ne du la war lan lañ ko wax yow Mariam ma kaana ummuki baxiya sa yaay nekkuloon njaalookat waaye sa papa ku baax la woon kon boo juddee ci kër gu baax yow na war a mel du war a baax mais ñoom jàppuñu ne lii kéemtaanu yàlla la moom dafa noppi rek romb leen ku nekk di wax Mariama ñëw romb leen ba génn dëkk bi ñëw ci jàkk ji dugg biir néegam kilifa làbbe yépp nag ñëw ak yahudi yi ñëw ñëw taxaw wër ko nag ne ko nag bu ñu fontoo doo dem ci àll bi ba am doom ñëw indi doom ji fii di ba ko fi teg bëgg ba wax ñu kii kuy baayam ñenn ñi ne kii ñu bu leen laaj ca baayam baayam xam nañ ko ñu ne leen kuy baayam ñu ne waaw kii kan moo ko yar ñu ne Yaxya moo Zakaria moo ko yar ñu ne ku ko dugaloon ci néeg bi ñu ne Zakaria ku ko fii seet si ñu ne Zakaria bu pare mu ne mu ëmb ngeen di laaj kan la bu la ñu fontoowaay yi wala ñooñu moom fu ñu dem xaat ñu bëgg a tuumaal Zakaria ne Zakaria moo ko jur te yéen xam ngeen ne Zakaria mun tawoon am doom ba dafa doon ñaan yàlla pour am doom ba yàlla bi mu koy may doom jox ko misaal yoo xamante ne noonu lay xamee ne jabaram ëmb na Mariama loolu yëpp nekk fa di wax ñii wax nañ loolu ñeneen ñi ne kii ci àll bi la amee doom ku nekk indi sa wax moom tontuwu leen bi coow li demee ba bëri nag lañ ko ne waaw yaa Mariamu yow Mariama wax ñu ci lii nag léegi lii wax ñu ci ah mu daal leen joxoñ xale bi fa asaarat ilayhi mu ne leen nii wax leen ak kii ku am looy wax daal xale baa ngi nii ñu ne ko yow yaa ñu yab yow yow daal yow yow ku yow ku reew nga kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiya naka la ñuy waxee ku nekk ci ay morsom ay laltaayam nekk liir bu tooy xat mu ngi nii nii nii ñu koy doog a jur amul sax ay minute naka la ñuy waxee kooku boroom xam-xam yi nee nañ xale bi bi mu déggee baat yooyu xam ngeen liir day tëdd nan la def noonu mu tëddee dafa njaganaayoo mais gauche bi nii daal di jël tànk ndeyjoor bi teg ko ci kaw tànk càmmoñ bi fi mu tëdd moom xale bi liir bi tegal tegale tànk yi loxo droite bi lay yëkkati ci kaw ne nii su mu njaganaayu rek ne leen inni abdullah man jaamu yàlla laa aataaniyal kitaab yàllaa ma jox téere bu tudd injil évangile wa jaalani nabiyan yàllaa ma def yonante tey wa jaalani mubaarakan yàllaa def ci man barke salaamun alayya waaye man mii yàlla na jàmm nekk ci man yow ma wulittu bis bi ma juddoo tey wa yow ma amutu bis bu may dee wa yow ma ubaasu xayya rek ñu fëlëxoo dañoo fëlëxoo am ñoo xam ne dañoo taxaw di yuuxu ba daanu am ñoo xam ne dañoo bërëngu ci escalier jàkka ji am ñoo xam ne dañ faa jaar dof am ñoo xam ne dañ faa jaar dee am ñoo xam ne dañoo egg suuf si jóot xam ne yàlla indi na yonant jamonoom parce que ñu ngi ko doon xaar parce que ñooñu ñoo xamoon dëgg gaa ngi ñëw Mariam lañ ko foogoon ndeke Mariam juddu nekk jigéen waaye ndeke yàlla lim namoon mooy yonante boobu Mariama mii moo koy jur moo tax yàlla mu ne xale bi wax na ci bi mu nekkee ci berceau bi wa yukallimu naas dafay wax ak nit ñi fil mahdi ci berceau waaye wa këhlan yàlla nee na dinaa ko yar ba mu nekk këhal lan mooy këhal mooy waxambaane këhal loolu moo leen di wan ne Isa day delsiwaat parce que deewul Isa bi mu amee 33 ans la ko yàlla yëkkati kaw asamaan ci yahudi komplo bu koo rey fi mu daan tëju ci jàkka ji di jaamu yàlla am kenn ci taalibeem yi dem di ko boole ji parce que boobu yahud yi neexal nañ waa jooju loolu moo tax ngeen di dégg Isa ci alquran yàlla dañu nettali ne ñi ko waroon Isa génnul àdduna lu dul xam na ne ñi ci ëpp léegi ay yéeféer lañ parce que buur bi jënd na leen yahud yi jënd nañ leen ak alal dañoo jege ni Isa rek mais dañ koo complot gëmuñu ko xam nga buur buur dafa doy waar moo tax nga nekk nitu diine bëgg a jege nguur li ëpp dootoo jëfe dëgg doo wax dëgg tey fi may wax ak yéen ay borom xam-xam yu bari nit ñaa ngi leen di weddi Égypte c'est parce que dañoo far ak nguur dañoo far ak ñi def coup d'état te ay borom xam-xam yu siiw lañu woon ci àdduna bi nu nit ñi daan wër guddeeg bëccëg ñuy wax nit ñi jooy di yuuxu mais tey boo demee nga gis ay xale yi ndaw di leen weddi di leen wax wax yu bon lu ko waral parce que dañoo wàcc seen ànd te nguur poson la nitu diine ak nguur poson la Cheikh Ahmad Bamba ci téere bu tudd Fathul Manaan mi ngi wax boroom xam-xam ci buntu këru buur mi ngi mel ne weñ wu joggi ci ay dem àll ba weñ wu nekk ci kaw dem àll ba moo gën boroom xam-xam bu taxaw ci buntu këru buur bu njëkk ba buur yi ñoo daan fekki boroom xam-xam yi mais tey tey boroom xam-xam yi ñooy fekki ñooy ñaan audience ndax lan ndax poñetu àdduna yonent alayhi salaatu wasalaam nee na al ulamaau warasatul ambiyaai ma lam yuxaalitu sultaan wa yudaaxilu dunya fa ida xaalatu sultaan wa daaxalu dunya faqad xaanu rusulu jamian faxzaruhum yonent bi nee na boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi yonent yi boroom xam-xam yooyu doon na boroom yonent yi feeg duggante wu ñoo àdduna bëgguñu àdduna duggante wu ñu ak nguur boroom xam-xam bu la bëggee bu la gënee bëgg oto bu rafet gën laa bëgg xale yu jigéen bu rafet xale bu jigéen bu rafet gën laa bëgg kër gu rafet gën laa bëgg lal bu rafet lépp lu rafet boroom xam-xam bi di ko xëccoog yow bu yeboo nga bàyyi ko boroom xam-xam boo xam ne moo la gën a jege nguur yonent bi nee na bu yeboo ngeen bàyyi boroom xam-xam boobu bu yeboo ngeen xam ne boroom xam-xam yooyu war nañu yonent bi li war ci yéen ñii mooy ngeen bañ leen a topp parce que bu ngeen leen toppee rek alko parce que dootuñu leen wax dëgg benn borom xam-xam ci Égypte dafa am benn place bu ñu doon ubbi borom benn buur war ko ubbi ñu invité ci benn borom xam-xam mu ñëw toog bi mu séenee buur bi ñëw rek jëm ci place bi mu ngi dox nit ñaa ngi ko wër bi mu ñëw ba jib ko moom fi mu toog mu yuuxu ko ne ko diw buur bi taxaw mu ne ko ragalal yàlla rek buur bi taxaw mënatul dem mu ne ko lan laa def mu ne ko place su sàngam dañ fay jaay sàngara te yow yaay buuru jullit yi buur bi ne ko man man man loolu laa fekk sam papa la remplacé loolu balaa man may ñëw fii la fi nekkoon mu ne ko da ngaa bëgg a bokk ci ñi naan inna wajanna aba ana ala umma sama ndey ak sama baay lii laa leen fekkee rek loolu laa loolu laa leen di def ci ñooñ nga bëgg a bokk yow rek buur bi daal di ne ana diw mu ne maa ngi nii mu ne dabal ñu arrêté foofu ñu jaay sàngara bis ni que tey buur bi arrêté affaire bi dem continuer ubbi li mu doon ubbi dem ñibbi këram ci suba si borom xam-xam bi ñëw xëy war a def dars taalibe yi wër ko nag benn taalibe ne ko sëriñ sëriñ démb lu dangereux nga def mu ne ko lan laa def mu ne ko démb gis nga bi nga waxee président bi ñun ñëpp dañoo tiit ñu yaakaar ne dañ lay rey lu tax nga def loolu bul ko defaat ndax yow xam nga ñun yow lañ am buñ la reyee dañuy perte suñu dar si bul ko defati sëriñ bi ne ko wallahi la azim bi ma séenee buur bi muy ñëw ba mu jege ma ma xool màggaayu yàlla ma xool màggaayu buur bi dafa mel ne président bi ci man muus la moo tax ma wax ko bi ma koy wax tey ma ko moo tax du benn ñii kenn waru leen ragal dun dara saxaratu firawna sax xam nan loolu njabarkatu firawna yi xoola firawna ni mu toll bi mu leen ne yéen danaa leen rey danaa dagg seen tànk danaa danaa danaa ñooñu dañ koo xool ba ci yàgg rek ñooñu dañ ko xool ba ci yàgg ñu ne ko defal loo mën a def faqdi ma anta qaad innama taqdi hadihi alhayat addunia defal lu la neex adduna rek nga mën alaxira mënoo fa dara ñoo yow ñoo yem kon doomu ndey yi mbokk yi mariama alayhi salaam alayhi salaam bi mu indee doom ji doom ji fii la wax ak nit ñi wa kahlan alkahulatu mooy nekk ndaw nekk ascam sinna ma bayna shabaab wa sheyxuuxa loolu mooy kahl loolu moo tax ñu ne kon Isa deewul kon laa budd mu ñëwaat parce que bi muy dem 33 ans la am bi ko taalibe yooyu waree yàlla moo nu ko nettali ci alquran isa génnul àdduna lu dul xam ne ne ñii wor nañ ko ndax alquran moo ñu nettali ne falamma ahassa isa minhum ah al kufra isa bu mu yëgee ne entourage am bi ñi ko wër ay yéeféer a ngi ci qaala man ansaari ila allah ci la woote nag ne kan moo may dimbali ñu dem ci yàlla ñan ñoo may dimbali ñu dem ci yàlla qaala al xawaariyuun nahnu ansaarullah fa amana taifa min bani israil wa kafarat taifa ñenn ñi gëm ñi weddi ñu nekk ñaari groupe waaye xam na ne benn groupe bi moom ay yéeféer lañ isaa ci néeg bu mu nekkoon di jaamu yàlla waa ji ba mu xoolee ba xam ne isaa ngi fi dafa def woote ji dafa def wooyu ji bu yahud yi ne leen isaa ngi ci mihrab bi ñëw leen gaa yi ñëw di ubbi bunt yi di tëj moo jiitu moom waa ji Isa di moom muy ubbi gaa yi dugg muy tëj muy ubbi gaa yi dugg muy tëj ba dernière bunt fi Isa nekk mu ne leen xaar leen ma ñëw mu ubbi dugg ndeke yàlla génne na Isa ci fenêtre bi yëkkati ko bi mu génnee di wax gaa yi yàlla masaa ko kanamu Isa bi mu génnee naan gaa yi mu ngi ci biir dugg leen gaa yi dafa ne Isa la parce que kanamu Isa la génne visage u Isa bi muy génn xamul ne yàlla solal na ko masque bi rek gaa yi njëkkante ko may ñu ko mu wax ñu dóor ko mu dee biñ ko reyee mbooloo mi divisé wu deux ñu ne waaw yéen kan ngeen rey ñu ne Isa lañ rey mu ngi nii ñu ne ñu ne ana ki ñu ko doon anamu moom mi dugal moom mbooloo mi commencé nag xeex coow am Isa lañ rey rey ñu Isa waa ji lañ rey waaye yàlla moo wax dëgg lan la yàlla wax wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu ah walakin subbiha lahum yàlla ni wóor li wóor tey mbir mooy lan bal rafaahu llahu ilayhi man yàlla maa ko yëkkati mu ñëw ci man te leer na beneen bi mooy tey fii ci ñu nekk chrétiens yi lan la ñuy tax croix croix croix bi kañ la am ah croix bi kañ la am après Isa kon croix bi bokkul ci christianisme parce que bu ñu reyee Isa ba pare lañ wax ne lañ ko christifié ñoom ñu jël croix bi ko takk kon Isa moom daa bëggoon ci croix parce que musta musta takk croix gis nga bidaa bidaa la loolu yàlla ibtada uha ma katam naa alayhim chaque jour nit ñi dañu bëgg bidaa loolu moo ñu dal ñun jullit ñi dañuy fekk loo xam ne suñu diine bokk ci ñuy jël ko di ko ci dugal croix bi bokkul ci bokk ci parce que Isa ci boppam ku ko ne woon croix am na ci sa diine danaa luy loolu parce que moom fekkee ko xamu ko ñoom nee nañ biñ ko ree ba pare lañ ko teg ci croix bi lañ ko daaj yàlla weddi leen ne leen loolu amul reyu leen ko christifié wu leen ko li wóor tey mbir mooy waa ji la ñu jox image u Isa ngeen rey ko moom Isa yàlla daal di ko yëkkati kaw asamaan te buñ balaa aaxiru zaman buñ demee ba àdduna di waaj a jeex Isa dana wàccaak ànd ak imaamul mahdi al muntazar ñoom ñooy rey dajjal moo tax bu ñu toogee watee nga ñu naan mahdi ngi fii mahdi ngi fii ci booru ginnaaw parcelle loolu ay caaxaan la rek nit ñi gëm ñu ne mahdi ñëw na isa ñëw na ñu ne dajjal ñu ne dajjal mooy Hitler am seeni ñoo yaan dajjal mooy Hitler Sénégal dañu ñeme yàlla ko Sénégal dëkk bi dañu ñeme yàlla trop trop am na ci koo xam ne nag gis naa bàmmeelu Isa mu ngi asamaanu troisième gis naa ba dem naa ba foofu fekk naa fa bàmmeelu Isa ay waay dañ ragal yàlla Sénégal dafa neex a neex a neex a neex ku nekk lu la neex wax moo tax nit ñi alko moo tax sénégalais yi pour ñu am diine bu baax bu wér non c'est très difficile parce que duñu leen wax diine dëgg ay caaxaan rek ay léeb ak lëppoon léegi ñëpp ay waaraatakat lañ même même sax animateurs yi am na kenn ku nekk ci benn rajo animateur la de day def ay xaw ma tës xaw ma ma dégg mu ne waaw am na benn imam boo xam ne daa dem safara am benn chrétien benn yëfeer bu dugg àjjana ma ne ah lii de dinaa ko déglu waaye imam bi dafa am benn nit ku ñëwoon ne ko damaa xiif mu wañ ko jox mu lekk yëfeer bi kooku ne ko damaa xiif mu jox ko mu lekk ñu dee yàlla yóbbu yëfeer bi àjjana yóbbu imam bi safara léegi wax léegi yooyu mooy lan mais dafa yomb yooyu la nit ñi gëm caaxaan yooyu lañ dugal seen bopp yi ba nit ñi kenn mënutul jaamu yàlla koo wax jaamu yàlla mu ne la xoolal nit ki boo jaamu yàlla sax mën ngaa dugg àjjana yàlla ay xol lay fay ak ay bët lay fay ak ay nopp lay fay ak tànk lay fay yooyu amul fenn yàlla waxul fenn ci àdduna ay bët lay fay ay nopp lay fay amul fenn jëf ak xol la yàlla di fay yonent bi moo ko wax inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum yàlla nee na du ma xool da ngeen a njool wala da ngeen a gàtt da ngeen a rafet wala da ngeen a ñaaw da ngeen a ñuul wala da ngeen a xees yàlla du xool loolu ay arab ngeen wala da ngeen a ñuul loolu kenn du ko xool xam nga lu ñuy xool seen xol yi ak seen jëf yàlla bu xoolee xol bi mu set day xool jëf ci est-ce que xol mun na rafet jëf ñaaw su xol bi su jëf ji ñaawee rek xol bi baaxul waaye bu jëf ji rafetee rek boo xoolee xol bi da ngay fekk mu set yonent bi nee na li ci kanam moo nekk ci xol maa fil qalbi yazharu fil wajh li ci xol mooy feeñ ci kanam kon bu xol bi nangoo rek su xol bi nangoo nangulee yàlla rek cër yi nangul yàlla ku xolam nangu fii julli rek bu julli jotee nga jàpp dem jàkk waaye ku xol bi bañ bu julli jotee stade nga jëm bu ñu la nee julli nga ne non c'est que il paraît non gis nga julli yaa ngi dégg non julli amul njëriñ ah waaw bu julli amul njëriñ lan mooy am njëriñ yéen da ngeen di woor non ja loolu loolu ay kii la quoi ay ay ay formalité la rek ay julli ay koor yi oui formalité la gis nga sëñ bi joxeel sa xol rek joxeel xol bi rek koy jox xol bi bu fekkoon ne julli amul njëriñ koor amul njëriñ azaka amul njëriñ aji màkk amul njëriñ diine ji amul njëriñ kon yonante bi dina ko def yàlla dina wax ci alxuraan def leen ko saxaaba yi dinañ ko def kon kay yonante bi day woo saxaaba yi muy ñëw mu ne waaw waaw ana ana ngeen ñu ne maa ngi mu ne ana Abubakar mu ne maa ngi mu ne jëlal xolu gaa yëpp indil ma ah gaa yi ana ngeen ñu ne ana jox leen ko xol yi rek macha allah ngeen dem tëdd nelaw àjjana incha allah yéen ñëpp di ngeen dugg saxaaba yi genn wàll gi dañ leen rey ndax jihaad bu ñu doon jihaad pour tas diine ñaata saxaaba ngay lim dañ leen rey Ousmane dañ ko rey dañoo rey Umar dañoo rey Ali dañoo rey Hamza kan saxaaba la ñu rey kenn xamul luñ toll dañoo rey Musab ba ci jigéen ñi te yëpp lu ñu leen rey diine tax te ñoom dañoo jaamu yàlla ba ba pare ñu rey leen ñun defuñu dara te di nelaw am confiance koo gis dugg na àjjana Sénégal koo gis dugg na àjjana macha allah macha allah bu ñu ragaloon sax ne ana waa àjjana nga ne ñu ngi fa démb laa leen gëj a gis boo amuñu bu billaahi parce que xam nañ ne ah waaw sëñ bi yow moom loolu rek moo tax dañ duñ ko wax mais ñii dugg nañ ba pare xoolal Omar lu mu wax mu ne bu ma déggoon benn baat ñépp ñu ne di ngeen dem àjjana ba mu des kenn mu ne dinaa tiit ndax defe na duma kooku yonent bi xool Aboubacar ne ko di nga dugg àjjana mu ne bu sama tànk ndeyjoor duggee gauche bi duggagul wóolooguma wóolooguma ñun ñun nag dugg nañ ñun ñun dañoo woor dañu woor koor gi yëpp laa woor dugg naa àjjana woor bi yëpp laa woor kenn gi moom daa dem jàkka fajar rek booy tey jàkka jàkka ji laa julee fajar ah kon de yow du nga àjjana ndeysaan yal nañu yàlla jubal yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko mu ne wa min as-saalihiin xool xool leen mbokk yi daraja yi yàlla takkal Isa benn yàlla bi muy bi Isa di juddu yàlla def bégal yaayam ne ko ku baax a ngi ñëw yàlla moo ko utal tur tudde ko almasih ibnu mariam Isa ibnu mariam yàlla ne ku am daraja la ci àdduna ak alaxira yàlla mu ne day wax ak nit ñi ci bi mu nekkee ci biir som yàlla mu ne ak bi mu nekkee waxambaane as cam waaye xoolal yàlla mu ne wa min as-salihin ci ñu baax ñi encore lay bokk lim ko taggoon rek doy na min al muqarrabin fii deuxième aaya bi mu ne min as-salihin Isa dafa bokk ci ñu baax ñi waaye bokk ci ñu jege yàlla loolu moo tax nit war a góorgóorlu bokk ci ñu baax ñi ndax àdduna bi kat ñaari équipe rek ñoo fi nekk stade bi ñaata équipe ñoo ci football ñaari équipe xam ngeen lan mooy différence wu équipe bu àdduna ak équipe bu àllaaxira équipe bi moom fii bu nekkee ci kaw gazon bi di football dafa am ay supporters ci kaw tribune bi équipe bu àllaaxira nag amul supporter zone ngay nekk rek supporter du am ndax ñaari équipe kese la këru yàlla ak këru seytaane yow nag seetal foo bokk amul supporter sol mayo rek seetal foo bokk ñun ñi toog fi yëpp ku nekk xoolal foo bokk ñaari équipe yi rek nekk fariqun fil janna wa fariqun fi sair imma shakiran wa imma kafuran gëm mbaa weddi dugg àjjana wala dugg safara nga dugg kër yàlla rek wala nga nekk ci kër seytaane waaye mbedd bi moom kenn du fi tambaambalu tribune bi kenn du fi taxaw dugg leen ci terrain bi waaw allahu akbar loolu rek mooy dëgg gi kon nañu góorgóorlu mbokk yi ñu bokk ci saalihiin yi ñu baax yi nit saalihiin nit lan lay def ba nekk saalih asaalixu ak lan mooy baaxal nit mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy tax nga nekk saalix dafa am ay martaba yoo war a yéeg boo jógee ci islaam da ngay dem imaan boo demee ci imaan nga jóge fa dem ixsaan nga jóge ci ixsaan dem ci ixlaas nga jóge ci ixlaas di yéeg ay martaba la ay grade ba ba ngay nekk saalix mooy yow da ngaa baax ba ku la jege sax day baax da ngay nekk nit ku sangoo lem mus leen gis ku sangoo lem ba pare te weñ tagu ci kaw ku la jege da ngay mel ne ku xeeñ parfum ku sotteeku parfum ku la jege sax day day xeeñ mooy lu ñu war ñun ñu ñu baax ba pare baaxalaate ñaata yoon nga dégg ab yonent su ko yàlla taggee ba pare danaan mina salihin ci ñu baax ñi la bokk ci ñu baax ñi la bokk gaa yu gaa gaa yu baax yi ku bëgg a bokk ci ñoom doo sol seen yére kese de am na ñoo xamante ne bu ñu bëggee baax xam nga lu ñuy def yére la ñuy sol yére keroog laay dégg ci rajo bi benn reportage ñu ne na ngeen mooy te ndiku boroom yére yu rafet yi ndax léegi agresseurs yi dañuy sangu ba rafet sol yére yi rafet keroog laa ko dégg ñu ne léegi agresseurs yi dañoo silwise sénégalais xamuñu ko baax de xam nga lu ñu xam boroom yére bu rafet boo soloon benn jean braille sol chemise sol cap ah wax nga dëgg jërëjëf nga sol kap nga ñëw ci jàkk ji kenn dina ne jàllal ci kanam ah nga sol benn si alaaji bu weex taal sol koppati moo xam yor nga kurus yenn saa yi wala nga yor kaamil wala nga yor sijaada mokkaloo faatiha nag ñu ne bismillah rek nga dem première sàppe bu ilimaan di tardé ñu ne la salaamaaleykum bismillah dama ci kanam wala ñoom te xoolal pourtant kee dafa mokkal alxuraan mais li mu sol rek xam ngeen lu ko waral mooy kii daa nuru ñu baax ñi moo tax ñu baaxal ko kële dem nuru ñu bon ñi moo tax ñu bonal ko moo tax ñu wax nit nuru ñu baax tashabbahu in lam takunu mislahum fa tashabbuhu bil karimi falahun du ma deñ di ko nettali fu ma dem te ba ba may dee dama koy nettali dafa am benn cheikh bu ñu doon defal formation xam naa waaw parce que dafa am importance Yunus la seex bi tudd cosaanam Fran Tunis la mais dafa teel a dem France ba am nationalité français nekk français parce que yàgg na fa bi mu nekkee jeune la demoon France ba léegi ku ko gis tubaab nga koy teg waaye yàlla da koo dimbali ci cheikhu tabliir yi la bokk mu ñuy defal benn thème de formation mu ne dafa am benn sëriñ bu leen doon jàngal bi alayhi salaatu wasalaam nu mu doon soloo ak melokaanam mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam danaan sol yére yu mu ne bu sangu woon ba pare balaa muy solu day peñew peñe sikkim bi ndeyjoor lay tàmbalee xëcc mu génn mu jàpp ci suuf xëcc mu génn mu mel na day jëm ci kaw mu dem càmmoñ peñe mu génn su ko defee sikkim bi daal di fatt daal di wàcc mu ne après day tusngalu buy tusngalu ndeyjoor lay jëlee xëcc mu dem càmmoñ jël ndeyjoor xëcc mu dem càmmoñ mu ne bu defee loolu ba pare day sol yére bu weex mu teg ci gilet bu ñuul kaalawu kaalawu ba pare day wàcce ñaari car yi ci mbagg nee na mu diw sikkim bi mu xeeñu parfum mu sol ay xuf xuf mooy kawas yoo xam ne der lañ ko defaree der nekkul kawas boo xamante ne leen lañ ko defaree mais der lañ ko defaree mu sol loolu bu solee loolu ba pare day yore kaan benn yat boo xamante ne ci suuf dafa sew lu tax mu ko daan yore mooy pour yenn saa yi bu daan dem di faj aajoom bu gisee jiit yeeg jaan yu demee noonu yu ndaw ndawaan yooyu di loraate bant bi la leen di jam nee na benn bis yonent bi def loolu ñu jàngal leen melokaan boobu yonent bi mel cheikh bi moo koy nettali nee na comme moom mu ngi France benn vendredi jot rek mu ne tey fokk ma yonent bi nee na vendredi bi rek mu dem sangu ba set mu sol yére yu weex mu teg gilet bu ñuul mu amaamawu kaala bu rafet mu ne mu wàcc ñaari cat yi ci mbagg yi mu ne mu kës gëru tubaab bi ñuul ko mu génn si bi mu sol ay xuf mu ne mu yor kaan mu jëm ma mu ne mu romb benn ivrogne xam ngeen ivrogne mooy lan mooy koo xam ne dafa naan sàngara ba bu naanul sax bu naaj bi tàngee rek day màndi nee na mu romb ku mel noonu kooku toog ci trottoiru France tali di ko xool ba càgg ne ko yaa Muhammad yaa Muhammad yaa Muhammad mu ne xoolal damaa jéem a nuroog Muhammad rek naankatu sàngara laa gis mu may jaawaleeg Muhammad cheikh bi bi mu waxee loolu ba pare ba mu jox ñu sunu dars dars bi jeex ma ñibbi si géejawaay vendredi jot gaa yaa ngi ree de man leen tey de li cheikh bi waxoon dinaa ko def jumaa ji en face parcelle kii préfecture sapeur pompier en face jumaa jooju xam ngeen ko ah jumaa jooju xam ngeen ko boobu jumaa ji melul nii de jumaa yi 68 foofu lañ njëkke woon sunu bayaan boobu lañ fa sunu liggéey foofu lañ ko njëkke woon boobu lañ doon bayaan jumaa ji ñëbbuñu police yóbbuñu préfecture ñu tere ñu jumaa jooju ndax fitna yi fa am parce que pistolet tàkk na fa comme nag histoire bu rëy am na fa chaque jour sama yaay di wax ak sama papa léegi ma bëgg leen noppal quoi ma bàyyi jumaa ji ma jëm jumaa ji mais bi ma déggee dars bi ba pare bisoo bi may dem jumaa ma ne leen tey fa ma nuroon yonant bi sangu ba set soo dee lay weex ma seg benn gilet ma amaamaw tusgalu diw sama sikkim ba mu melax ma peñe ko ñu sëlmal jumaa rek ma génn commencé bayaan ñëpp taxaw diglu bayaan bi diglu bayaan bayaan bi jeex rek benn waaye ñëw ne ma doomu Muhammad ñaanal ma ah waay waay waay kii mooy doomu yonent bi mi ngi nii kaanal mu ñaanal leen gis ngeen loolu moo tax ma ne nekk sooy nuru nuru lu ñu baax ñi dañ lay jaawaleeg ñu baax ñi waaye booy nuru nuru lu ñu bon ñi ñi kiris karas seen tube yi di génne seen siri bi barañ seen bopp yi mel def ko ay puubu kaña bënn seen nopp yi ñooñu ku ñuy toppandoo sooy toppandoo da ngay toppandoo ku baax tashabahu beneen yoon bi dama sol loolu dem école ma ànd ak kenn ñuy waxtaan ba caag ma ne ko kaay ma wan la ne waa Sénégal ay dof lañ mu ne ma li nga wax garaaw na de ma ne ko dama la koy wan ñu ne tëll ci benn bitig rek ma dugg ak noonu ma mel asalaamaaleykum wa rahmatullah rek borom bitig mu ne waaleykum salaam ma ne ko xadaaya shérif xool ci suuf rek waa ji daw ci comptoir bi song bi commencé wàcc ay paquetu tàng kakki kakki ba dajale ba mu ne def ci benn muus bismillah ma ne waa ji jëlal yow waa ji jël waa ji xoolal ma xool ma xool borom bitig bi ne ko dof jox ko yëfam ñu dem waa ji ne ah du du ngeen ko jël ma ne ko ñun duñ tus mu ne pourtant yow koo xool ko la xool defe ne shérif nga xoolal xoolal yow benn waay jóge fële shérif laa rek nga jox ko li nga yor yow dafa yomb dafa yomb trop ah ñu yor benn mbubu rek am sikkim rek Sénégal ngeen ñu fi am mbubu ak sikkim loolu ni mu yombee léegi ku mel noonu rek warul liggéey warul dem liggéey dafa war rek di laaj nit ñi di ko jox fu mu ko yóbbu waa pare maa ngi laaj sama addiya maam est sa maam moo la yónni foog sa maam non li nekk fii dañ ko war a wax di jeex nit ñi dem liggéey nit ñi jaamu yàlla nit ñi ñuy nax rek mbokk yi nañ leen jaamu ji yàlla bëgg ku baax du tax nga baax de da ngay jéem a baax nga baax da ngay fekk ñi baax jaar ci yoon wu leen di baax nga jaar ci yoon woowu wallahi boo tëxee yegg leen nga baax waaye bu fekkee gars yi dañoo jaar ci yoon bu baax xool yoon tàng jër ba xool yoon bi mu métti waaye waaye fii rek dinaa baax comme ñoom lay sonal sa bopp xool leen nit ñu baax ñi di wax kan ci ñoom moo doon tëdd di nelaw wax leen ma ko wax leen sax ci ay yonent beeg sahaaba yeeg ñooñu dañu dañu xool fii rek suñu réew mi rek suñu mag ñu njëkk waxuma ñii nag léegi de waxuma génération bii de génération bi ci bi ci kaw bi ci kaw bi ci kaw ñooñu ñu naan suñu maam yooyu dañ leen xool ñooñu li tax tey nit ñi fëx topp leen mooy dañoo baaxoon lu baax rek lañ doon def ñun sax xanaa bu ñu jéem a jàpp seen bopp mais déedéet nekk ci ay caaxaan ku dee rek ñu ne ku baax la moom de da doon ree rek ak a mën a ree ñu ak a mën a bégelaate moom de da doon animé rek ah yàlla leen ku animé ku baax la loolu ba naaye la yooyu ay caaxaan la mbokk yi yal nañu yàlla dimbali ñu jóge ci qaalat moom soxna si biñ ko nee di nga am doom ju mel nii ndeysaan doom ju mel nii jar naa ñaan yàlla de moom soxna si mu ne qaalat rabbi mu ne yow sama boroom anna yakunu li walad ay yow yàlla nan laay amee doom man lu tax mu laaj laaj bi mooy walam yamsas ni bashar góor musuma laal nit góor musuma laal musuma am rapport sexuel ak góor ba pare yow yàlla nga ni damay am doom moo tax mu laaj laaj bi parce que mbir mi yéeme waxoon naa leen sànq bi ñuy commencé man leen saa yoo gisee lenn loo xam ne dafa am te warul woon am kon yow li la war mooy nga laaj mais ñun tey kenn duñu laaj ñun kenn duñu laaj nga fekk sëñ bi mu toog mu am ñeenti jabar nga dégg ñu ne day takk juróomeel nga ñëw ne ko asalaamaaleykum waaw cheikh bi ma ne ah man de wax dëgg yàlla dama la doon laaj lu tax nga takk juróomi jabar ñeme nga ko ku ko fi ñeme kon dañ naan dóor leen ko kii dafa yabaate saa yoo gisee ci diine wala ci aada lu daan am amee neneen yow amoo droit noppi da nga war a laaj soxna si biñ ko ne da ngay am doom te moom mu nekk xale bu jigéen bu ndaw musul sëy lan la wax anna yakunu li walad mooy man nan laay amee doom lu tax parce que li ñu xam ci sunna ak aada mooy nit ki balaa muy am doom foog mu foog mu sëy loolu la ñépp xam te loolu mooy lu lu naturel mooy jigéen saa yoo déggee ëmb na bu laaj dafa am góor gum ko séqal xale bii ci biiram dafa am baay ba mu des Isa moo tax biñ ko nee ah yow de di nga am doom biñ ko waxee wax ji li mu njëkk a laaj mooy anna yakunu li walad naka laay amee doom walam yamsasni bashar musuma séq ak mbindéef góor musuma jege qaala ñu ne ko kazalika naka noonu waaw walam yamsas ni bashar lu mu ci namm mooy turiidu li mu namm moom ndaw si mooy lam yapriqha musu koo jege zakarun góor laa lil wuquu'i wala lil xayri ka góor musul sëy musu ko laal musu caaxaan wa kadalika xaqamaha wa baadaha an irrijali l ajanib loolu taxoon moom dafa fegu woon dafa làqoon ci góor ñi bokkul ak ñoom woon musul sëy kenn moo amoon accès ci moom moo tax bi mu laajee laaj boobu kayfa yakunu li walad walam yaxsha basaran bi jima suma sëy ak góor wa sunnatullahi fi xalqil walad alxisiyaan sunna yàlla ci doom war a ëmb ci biiru jigéen mooy lan sëy fa ajabaha jibril qailan al amru hakaza sa yaxluquhu llahu tabaraka wa taala minka waladan jibril moo ko ne moo tax mu ne qaala mu ne ko moom jibril kazalika loolu day nekk na ba pare foofu jibril di wax ak moom rek jibril dafa ëf mbubu bi ci dend baat yi fii la ngelaw li dugg rek mu daal di ëmb mu wan lool fii nag borom xam-xam yi dañ naan dafa ëmb comme jigéen ñi ni ñuy ëmbee juróom-ñeenti weer ñenn ñi ne déedéet dafa wax ak moom ëf yére bi mu ëmb ci saase mu commencé matu ci saase mu am doom te bu fekkee kéemtaan la boobu moo jaar yoon bu fekkee ni kéemtaan la booboo jaar yoon mooy fi Jibril di wax ak moom foofu la ëffe mbubu dendi baatu yére bi mu ëmb bi mu ëmbee yëg ne ëmb na mu commencé di saalit di wax waxu ku am naqar aka neexoon ma dee aka neexoon ma bañ a judd loolu mooy gis nga boo nekkee gor boo nekkee di amee diine boo baaxee soo tarxiisee da nga yedd sa bopp xoola moom li muy baax baax yépp te lii nattu la bu yàlla teg ci moom sàkkuwu ko fawi jiwul njaaloowul terewul mu ngi yedd boppam qaala rabbi yow sama borom anna yakunu li walad moom man nan lay amee doom walam yamsasni basar góor mënuma dal xaala jibril ne ko kazalika lool de allahu yàlla moom yaxluq mooy sàkk mooy bind maa yashaau lu ko neex lu ko neex mu bind moom yàlla lu ko neex yàlla bi muy sàkk aadama nan la ko sàkkee ci ni mu ko neexee utalu ko benn baay utalu ko benn yaay ci suuf si la tibb ci ban bu ñuul bi ak suuf si jaxase ko ba mu nëb di waw di xeeñ di keleng-lengi yàlla def ko mu nekk aadam ne ko kun fay kun mu nekk aadam yàlla bëgg a bind xawaa nekk fa naan xaaral ma tibbaat suuf dafa bàyyi ba aadama di nelaw mu damm faaru góos bi génne ci xawaa waaw looloo ko neex maa yasha kële looloo ko neexoon kii looloo ko neex kii mu utal ko yaay ñun li ko neex mooy mu utal ñu ay ndey ak ay baay maa yasha lu ko soob moom yàlla loolu lay def te lu mu ci def noonu la yeneen yi rab yi ñi mu utal leen ay tànk ñuy dox ñaari tànk ñi mu defal leen ñeenti tànk ñii utalu leen tànk ñuy raam di watatu ñii di naaw ñii di féey looloo ko soob wala ñun dañoo bind yàlla lettre def demande xar def demande yàlla bind ma ko naa am ñaari tànk ñaari loxo naa dëkk Sénégal naa nekk nit ku ñuul ku def demande fi bi ngay juddu damay laajte de ma ni fii bi ñuy judd kan moo def demande ne yàlla def ma nit yàlla la soob yàlla moo ko neex mu bind ñu ñun ñu nekk ay nit moo tax yàlla ci suuratul infitar ndeysaan waxam juree jooju muy wax ak doomu aadama ne ko yaa ayyuhal insaan maa garraka bi rabbikal karim ey yow doomu aadama lu la jay eey doomu aadama lu fees sa bët lan moo la war la nga bàyyi sa borom bu tedd bi xoolal bi rabbikal karim sa borom bu tedd bi ban borom mu ne allazi xalaqaka fa sawaaka fa adalak fi ay suratin ma shaa ñëwaat na baat bi ci melokaan bi ko neex bi ko neex da nga war a gàtt mu gàttal la da nga war a ñuul mu ñuulal la da nga war a ñaaw mu ñaawal la da nga war a rafet mu rafetal la da nga war a xuuge mu xuugeloo la da nga war a patt mu pattal la fi ay suuratin ci melokaan moo tax xeesal xaram bu ñu la laaj aaya buy araamal xeesal aaya baa nga yàlla ne ci melokaan bi ma neex laa la bind bi ma neex dafa am ñoo xam ne damaa bëggoon ñu xees ma def leen ay tubaab yow damaa bëgg nga ñuul kon yow mi yàlla ñuulal nga ne ñuuluma est-ce que nangu nga li la yàlla def yow mi yàlla ne da ngay gàtt nga dem ne da ngay nekk càkkaaba pour ay daalu bant est-ce que gàttaay bi neex na la fi ay suuratin ci melokaan macha ah bu ko soob rakabaka la la formé kon yàlla ni ñu mel nii noonoo neex yàlla ni neex yàlla na la neex boo nee ni neex yàlla neexuma mooy gëmoo ko nii moo neex yàlla waaw moo tax mu ne moom yàlla allahu yàlla yaxluqu mooy bind maa yashaau lu ko soob te yàlla bu bëggee bind yow tey boo bëggee tabax nooy def kan moo yëkkati loxoom tontu tontu bi ku bëgg a tabax nooy def foog nga uti terrain ah foog nga uti terrain fooy tabax boo amee terrain nga doog a uti déedéet teel na suuf ak ciment dafa teel autorisation buy tabax ba nga am nga doog a uti nga doog a uti plan uti architecte uti uti uti di pare ba doog a ñëw nag ci matériel yi nga doog a tabax loolu dafa yàgg yàlla moom bu mu woon kër danaan kun rek kër gi taxaw yow sa bos dafa yàgg kun faya kun moo tax mu ne la isa qada amran yàlla bu nammee mbir bu bëggee dogal dara fa innama yaqulu lahu kun faya kun allahu akbar moo tax ñu ne borom kun moo mun borom kaso borom kënu ak borom karawaas ndeysaan borom kun moo mun borom kënu moo mun borom kaso moo mun borom karawaas kun xejul ci kënu xejul ci karwaas xejul ci kasu moo tax dañuy ànd ak yàlla yàlla bu nammee mbir innama amruhu loolu moo tax ñi jege yàlla ñépp ñu baax ñi xoolal yonent yi ba ñuy dee ba ñuy xeex ak kàccoor yi band yu bon yi saay saay si ku gisoon Muusa ak Haaruun nga gis Firawna nga gisoon Ibrahim gis Namruud gis yonent bi gis Abu Jahlin looy wax xam nga ne yow gis nga billaahi xam nga ne gouvernement bi jàppee ñii seen armée bi dara firawna ak Moussa firawna ak Moussa keroog ba ñuy jàkkaarloo ñoom ñaar ñi di tancaloo firawna ñaata nit la àndaloon peuple bi yëpp la àndal Moussa nekk kenn cunn moog rakkam kenn kenn benn nit bu dajeeg waa Sénégal benn nit wala ñaari nit bu dajeeg waa Sénégal mais problème bi du problème mu mbooloo du problème mu doole problème mu lan la est-ce que ci dëgg loo ragal boo nekkee ci dëgg bul ragal bul deltu ginnaaw Moussa bi mu xamee ne ci dëgg la nekk ragalul Ibrahima moom Namrud bi mu xamee ne ci dëgg la nekk ragalul xoolal luut xaw mu luut xaw mu noox bi ñu nekkee ci dëgg ragaluñu bi góor jigéen yi songee luut di ko waaj a rey moom bi ko yàlla ne gono rendez-vous suba la moom daf dafa yaakaar ne suba dafa sori léegi léegi ñu ne ko alaysa suba bi qarib suba jege na bàyyi rek duñ ex ci yow ndax yaa ngi ci protection yàlla yàlla moo lay aar kon boo ànd ak yàlla bu ragal nit ndax yàlla lu ko neex mu def innama amruhu moom mbiram yàlla isa qada amran bu nammee def dara yàlla bu nammee dara bu àttee dara day am mu ne lii lii la loolu mooy am kenn mënu ci dara bu yàlla ne day taw suul leen xorom ngeen seen ndax du taw dégg naa bu ngeen di ngénte asamaan bi xiin da ngeen di suul xorom wala ngeen def soirée ngeen xam ne tey affaire dafa nar a yàqu da ngeen dem jënd xorom di ko suul xorom mën na tere yéen xorom bu ko ndox laalee fu mu jëm xanaa kay ay weñ ngeen waroon suul moom ay weñ lañ waroon suul li comme comme mu bañ a taw ngeen defe ne xorom mën naa téye ndox yàlla bi bu yàlla nam mee génne jant bi ban baas ngeen di baas ba jant bi du génn bu yàlla na ne indi taw ana ban mbaar la ñuy jël mbaar dëkk bi ba du tooy xam ngeen ne Sénégal bu mënoon téye ndox mi ñu téye ko bu fekkee ne suñu sëriñ si mën nañoo téye ndox mi inondation bi na fi jóg waaye dégg naa fi benn kër sëriñ boo xam ne ndox mi daa dugg ba tëmbal photo yi dafa ne gars yi naan moo puusoon géej gi yàlla weddi na ko nawet bi ñëw ndox mi ñëw tëmbal saal bi ñu ne moo puus géej ku puus géej ko mënul see ndox dox di jaayaate rek Sénégal ak a ñu mën a jaayee kii moo puus géej kii moo puus asamaan kii moo téye woon yàlla kii moo sone woon wala kër mawti ku nekk ñu waxal la loo def yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko kon sunu darsa tey mu ngi jeexee iza qada allahu amran bu yàlla nammee dogal dara bu yàlla nammee atte dara fa innama yaqulu law da koy wax kun fa yakun nekkal mu nekk soo gëmee aaya bi nag dootoo sonnati ndax da ngay xam ne inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën dafa am benn waay bu ñu laaj ne ko nangam ak nangam nag ndax mu ne loolu mën naa am ndax loolu nekkul sunu diine ñun sunu diine mooy inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën waaw ñun sunu diine amul munta nekk sunu diine loolu amul ci munta nekk amul ci sunu diine sunu diine mooy yàlla lu mu bëgg a def da koy def kenn ci dara isa qada allahu amran fa innama yaqul lahu kun fayakun boo amee kóolute googu ci yàlla nag da ngay noppalu yow boo nekkee jeune amoo liggéey doo découragé da ngay continuer di jàng rek di déposer say kayit waaw la gëmloo ne boo sangulee boo takkulee boo naanulee doo am ba nga gëm loolu mooy torox nga waaw léeg-léeg ñu ne la da ngay sonn rek il faut njaxaa poxe ɓaleeje il faut njaxaa ɓaxe poxe ɓaleeje lootaɗa toon sa lootaake poxe ɓaleeje ɗe a humtata a nafata poxe ɓaleeje mooy yenn saa yi ñu ne la foog nga dem ci guy yu ñuul yi foog nga sangu gis nga réew mi ku sanguwul boo sanguwulee boo tekki ana yàlla ana yàlla ana yàlla ñaata nit ñoo sangu ba sonn tekki wuñu ñaata nit ñoo takk ba sonn tekki wuñu ñaata nit ñoo naan ba màndi dara lañu dara lañu tekkiwul ñu ngi fii tey di tabax lambar lambar yi jullit day dénk boppam yàlla looy dugg nga tàggu yàlla loo nekk nga ànd ceeg yàlla loo am nga am koog yàlla loo koy jox suba incha allah yàlla yàlla may wér ak fekkee salaamaaleykum wa rahmatulah.